برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان جيتك موي مولانا شيء الله نياس يالنا نكو يالا فايال يا ربي يالنكو يالله فايل يا ربي buñ ko amuloon dañ koy jéggi kon alhamdulilah dañ ko yàlla wane nee na buñ mu photo te photo bi muy xaqiqa mu ne kenn du feeñ bi lu Seydina Muhammad kii mooy ki jeexoon tàkk ci yàlla mooy ki jeexoon tàkk ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi taasu ci barkeem man miin naa ko lool maag turando Cheikh Ibrahima ñun ñoo doon ànd hmm. am na lu ma gis eh, ñu def ko ñoom ñaar def maa yéem booba maa ngi saara njugaar bàyyi bëgg a tukki te dafa doon wiit ak turandoo Cheikh Ibrahima lool kooku moom mel ni yaayu Cheikh Ibrahima ñu ngi ko tey Ibrahima moom tam Ibrahima la mi ngi bokk ci xeet bu ñu dee dafi ñoom dañuy xonq comme naar ah mu ñëw saara njugaar di tàggu si kooku kooku dafa waroon a dem ñu gise far ko feebar bàyyi taal otom daal di ñëw mooy idée bi mu yore woon ah yàlla dogal ñu waxtaan seen waxtaan man maa nekkoon ci diggante bi di jottali kii wolofam neexul far dégg ko sax te kii déggul dafi man maa doon jottali ci diggante bi toll nii ñuy génn nag sëriñ si seen ñaan du jeex ñaan nañ ci biir de waaye bëgg nañ ñun ñëpp jëriñu ñu bëgg a ñaanaat ci buntu kër gi ñu taxaw ci buntu kër tàll seen loxo di ñaan rek fekk am na ku nekkoon saara njugaare délégué de quartier bi mu ngi tudd alaaji Kibel Ba yal na ko yàlla yërëm bu doon yëgle dara dafa amoon ko ñu dee paar wala du paar mooy kooku di yëre ndënd bi naan buur nee na nangam kooku nag mi ngi doon ndaati sekk doo danaa tudd ngeen xam li may wax kooku ndaati sekk la tuddoon ca saara njugaal ci wetu IPRES bi muy rëndëndam di dóor kibel baa nee na ki nangam nangam kibel am benn jigéen bu ñu dee faat jong boroom këram tudd Cheikh Thiam taalibe lañ ci seen Xaasum Mbàkke bu ngin ngi ñu ne ko ndaati bàyyil ndënd bi bàyyi la mu ngi ñaan góor gi tiit daal tekki ndënd bi sànni ko ne dafay tëb ndënd daal di ko tël waaye laalu suuf dafa aju mel ni ku ñu sappe bàyyi daf ko gersoo mu def ci kaw wallahi kon ku ne ànd nga ak bàyyi nga daanu ànd ak bàyyi kenn du ànd ak bàyyi di daanu kii man maa teg bët lii saari njugaale fi ci weti IPRES waa gi ndaati sekk lañ ko dafa sànn ndënd bi tiit ne dafay tëb ndënd bi daal di ko féel waaye ni mu tëbee bëgg a daanu yeggul suuf noonu la tabe dañ ko gestu ñu foofu la tabe bu doon ndaat set ku mu neex mun dama jaar ci tur bi dii nga dafa yomb lii mën naa ko fekk kon góor googu ba may wax ci moom fii ba suba da nga fa ne lii fanatisme la déedéet kenn nettalu man maa ko fekkee maa ko fekkee